waaw ni leen démarcation ñu ne yéen xam naa ne dama ngeen ñu trop trop trop trop waa ah, waa Elmo TV tey ñoo ñëwaat tey si beneen anam boo xamante ne ni tey ak beneen actualité bi euh, bi tax ñu tey ñu ñëw fi incha allah rabi ah, leen tey euh, beneen DJ boo xamante ne kenn du si game mooy Louche parce que ñu ngi dégg benn affaire bi nga ne mu ngi am tey showbiz nekk loo xamante dafa ñaawa ñaawa ñaaw loo xamante rafetul tey ëllëg mën na yàq yàq lu baree baree baree baree bëri kon dèjà gan ñu ne lii raam jëm si nekk bu fa amee kër day naqaree dafay yi jële kon dèjà balaa mu faa jëm nag ñun ñu dox si suñu xar suñuy tànk dox si li ñu si war a dox wax si àq xool tamit ni ñu ko réglé ba mu nekk si jàmm ak salaam ki nga xamante ne nii kenn du am benn problème quoi dèjà que ok euh, léegi Louisa ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu. waaw euh, Abou maa ngi lay béggee bu baax a baax donc voilà di béggee euh, waa Elmo TV donc gars yi di suivre Elmo TV ci net bi ci YouTube bi maa ngi leen di béggee bu baax a baax. DJ Luz bu rajo Raay bi FM mais également DJ Luz bu Jéggi Raay Studio. Jéggi Raay Studio ok waaw dañ ngeen DJ Luz moo présenté woon doon léegi léegi mais Luz ah, ñu ngi dégg temps yi benn euh, effet boo xamante mu ngi am temps yi loo xamante nekk loo xamante daf ñoo neex. parce que tey euh, lépp loo xamante ne tey suñu milieu bi lu koy ñaawal bu ñu dara loo xamante siy dugg tey loo xamante ne rafetul quoi mais Luz tey yow noo jàngatee loolu. waaw euh, man dama waxoon sax du ma ci du ma ci du ci du ma ci dama koy off quoi parce que. Mhm. na bon def naa si ay sorties. Mhm. def naa sortie Pikini production et puis def naa aussi sortie ak waa Sénégal. Mhm. dama ne dama du ci waxat. parce na quoi parce boo ci nekkee di wax ci écran yi après finalement dañ naan kii dafa bëgg leneen. donc te or que tel n'est pas mais yéen. Elmo TV suma télé la quoi. dëgg la sa télé la xaw ma nu ma leen def. tooñ la woon rek comme tey ni ma lay tooñee. wala yow tey ni may tooñee. Mm-hmm. tooñ la woon parce que bon jël nañu audio boo xam ne amuñu su lu leen leer ñu teg ko seen biir émission. oui donc affaire bi métti na ma. parce que burul dara sax mën ak ñoom ay frère lañ ko woo. bi ñuy teg audio bi man woo naa leen téléphone ba ñu waxtaan ba pare plus de sept minutes. dëgg ñu wërwul ko jël audio bi teg ko. teg ko donc voilà man xamutuma affaire yi. oui moo tax après finalement donc voilà def naa ay sorti wax naa si. et puis mm-hmm. mais est-ce que yow yow tamit ah, nekkul yow tamit ba nga audio bi nga leen envoyé yow tamit parce que say biir wax déglu naa la parce que démb bëgg tamit maa ngi lay dégluwaat chaque jour parce que déglu naa nga leen envoyé mais audio bi nga leen envoyé yow lu tax ñun nanguñu ko bi nga xamante ni carrément mi ngi nekk bi nga xamante ni neexut a déglu mooy audio bi gën a ñaaw ñu ñëwul teg ko si rajo bi ñoom lu ñu si jublu dèjà maa ngi wax loolu quoi je sais pas. parce mhm. que tu l'as posé déjà liñ ci jublu peut-être ñoom ñoo ko xam franchement. man su ma xamoon luñ ci jublu comme bon def sax ay sorties. Mhm. mais ñàkk xam luñ ci jublu moo tax may def ay sorties. dëgg la parce que ñoom. Mhm. man man ñoom mosul ñaaw quoi. parce que depuis ba léegi ñu ngi liggéey. donc voilà ki nga faral di liggéeyal 2015. 2000 comprendre nga ba 2018. tey bu dara amee rek pour man. donc voilà war nga bon ñaaw na ñaawul parce que. non ñaaw na moom actuellement nii moom ñaaw na moom parce que lii moom nekkul li xamante ne parce que tey Louga euh, li ñu def nii neexul la biir xol.

c'est-à-dire que xaw ma luñ xaw ma luñ ci jublu quoi. comprendre mais xam nga bu fekkee da ngeen nekk ci benn milieu. milieu hmm. soo business. oui bu fekkee yéeneentu leen jàmm rek. waaw donc voilà dara du dox quoi. dëgg la nañu yéeneente jàmm avant tout et puis ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa sa sa prochain quoi. dëgg la comprendre c'est pas du question ñàkk quinze mille francs mais. Hmm. peut-être mal entendu. ak aussi maanaam bon euh, loon xaar xaar bu yàgg moo tax mu doxalee noonu. mai après moom donc le Mara il a tout démenti. dëgg la donc comme moom aussi démentir na. Mhm. ma demoon fa ñu toog ñu waxtaan ma enregistré ko. oui léegi ma jël audio boobu envoyé ko. envoyé leen ko ma ne ko léegi comme ñoom dañu amoon audace teg bële. oui dañu amaat audace teg bi loolu kese la. mais teguñu ko moo tax ma def sortie parce que audio bi ñi ko jot te xamuñu lu xew. Mhm. dafa bëri. dëgg la léegi ba ma defee sortie boo xoolee commentaire Pikini production yi ak Pikini ak euh, commentaire u yi. Mhm. di xam ne ñii xamuñu lu xew nu mu demee. waaw xamuñu lu xew comme def naa sortie ñoom ils dëgg la affaire yi nu mu demee. ok waaw mais tamit ah, man dama jàpp benn affaire quoi bon parce que audio bi ñoom bi ñu jël jàlle ko seen rajo xaw ma seen télé man dama jàpp ñoom ñoom position boobu ñu taxee boo fa nekkee woon doo doxalee noonu parce que nit ki ne doomu aadama da koy xam lu mu capable lu mu capable maa ngi dégg nga wax loolu noonu lu ñëpp la yéene jàmm. mais am nga plein droit tamit dem si sëriñ ne ko liggéey ma sama événement mu fees parce que fii àdduna lépp loo gis mustaay da siy am ñaan da siy am euh, lépp loo def amul mustaay cat da siy gaaw a dugg parce que ñun tamit ay mun naa ay africain lañu loolu fi ko fekk te fi lañ koy bàyyi bi nga wax ak maaraam ñu ko ñoom waroon ñu jël seen sa bos bi nga leen envoyé bi nga def ak maaraam tamit ñu daal koy teg bu dee ñoom tamit euh, euh, vérité lañ bëgg bu dee baax tamit lañ bëgg quoi bon comme envoyé naan ko teguñu ko. Mhm. cest à gën a tax ma def sorti loolu quoi mhm. am. na ñoo xam ne c'est-à-dire que luus kese moo leen ñor. dëgg waaw loolu am na gëmuñu keneen xamuñu keneen. Ah léegi ñooñu ñi nga xam ne ñoom yor nañu audio bi. Mhm. ñu ngi côté banlieue. man su ma defloon sorti ñoom dañuy xam. waaw ñoom duñu xam quoi autant pour moi parce que dañuy jàpp ne luus moom moo def lii. luus du nit ku baax wala dugg na fii gën a fii. wax nga ko léegi ah banlieue c'est que yàlla moo ma fay yàlla moo may fay sama xol. moo lay fay sa xol. parce que du ma du ma tooñ. oui et aussi ñu may tooñ ko oui waaw man de benn benn affaire laa la bëggoon mooy li nga xamante ne tey ma am na loo xamante ne ma ci tamit benn instant parce que tey mara bi bi nga dem mu jobala si événement ISEM événement ISEM kenn dox validé wut moo tax mënu fa mënu faa am xaju fa uh-huh. mm-hmm. ba gars yi ba ñu ñëw tas événement fa nekk si mbooloo ñu gis nañ ko xam nañ ñu fa demee kon dèjà que li ngeen waxante woon moom mun naa ne àgg na quoi mais mais moom tamit benn côté waroon taxawee ba nga ko woowee expliqué ne ko dafa mujjee yàqu dana la war a am na yeneen beneen anime bi mu waxtaan ak yow bi xam ne lu gën a rafet mais kaaka tamit moom tamit nit ñëw si moom jox ko benn audio ne ko nii parce que boo bëggee luus fere si xaalis fi nga jaar ko fii ak mais tamit luus di boobu tamit ñàkk ko 15 millions fay maraay parce que événement ISEG la am na un non c'est pas <laughs> c'est pas question que c'est pas question que ñàkkuma quinze mille francs ma ko jox parce que mara bi dañu waxtaan man ak moom ma ne ko hmm? léegi da may da may may d'ici un peu parce que dama nekkoon doon jaabante Tëngéej ak ak gendarmerie Ngor waaw parce que dañu jàppoon suñu matériel donc ci loolu nekkoon hmm? mais xam naa moom mënul xaar et moom fagoon na ne du ko jox du ko jox léegi ñu ngi jokkoo man ak moom téléphone waaw marabu moom tamit xaalis si 15000F la yaakaar avenir am wala xëy na waaw c'est que lu war a bon bu waree bu bu waree bon day bon. Hmm. waaw lu war a baax tamit bu ñu waree baax day baax destin la c'est-à-dire lii dama ko jàppee benn benn benn jaar-jaar boo doon am. Hmm. am na et puis passé na quoi parce que man ak sànq nee naa la man ak jumeau yooyu mosuñu am problème man ak ñoom. mais actuellement problème moom am na moom. waaw waaw c'est que mun na am. ba problème parce que déjà que ñoom seen ngor maytuñ leen ñu ñëw toog ak luus bokk ak moom benn plateau wala bokk ak moom leneen ak leneen balaa xam ne euh, problème am na. tey tey nga bëgg nga boole bëgg a boole jus mooy ak ak luge dèjà dañ bañ dañ wax léegi parce que instant ni confiance moom ñàkk na confiance am na yow nag euh, sa côté bi nga féetee yow da ngay jàpp ne problème amul dara amul mais keneen ko côté bi mu féetee parce que ni ko ne tam bopp nga xam. dèjà que c'est que non belem am na parce que li tax ma ne la problème am na mooy. xam nga mhm. tey bu fekkee bu fekkee Abou yow tu es et puis ñu nekk ay frères man ak yow. ma dégg benn wax wala ma jot benn audio. Mhm. aw ma si ay preuve yu ma leer ma jël audio bi teg ko sa mbir émission. Mhm. sans ma woo la téléphone. Mhm. wala ba pare. ma wëlbatiku bi teg ko sa émission donc problème day am quoi problème day am si. parce que man aussi man bon man damay jàpp ne peut être ñii. dëgg la te dèjà dafa mel ni yéen ñëpp ay mbokk ngeen parce que yéen ñëpp daa mel ah. ay man njaago la la na nga voilà te euh, bokk benn paroisse bi ngeen nekk mais mais bon catholique lañu man ma nekk ay bon ma nekk war en fait njabootu Jésus Christ nga parce que déjà la war dox seen diggante ngeen waroon yéenante jàmm ku nekk tamit xool lu gën a rafet sa morom nga di ko defal parce que ma benn côté tamit loo xamante ne nii euh, nee naa man xëy na xëy na luus tamit loolu sagganteem la quoi parce que mooy si saggante mooy lan parce que tey événement boo si jógee surtout Mara jëriñoo desal dara quoi. Mm-hmm. parce que yaa ngi comprendre parce que Mara bi la jubal événement tey mu fees non luus moom ñàkkul 15000F yi mu jox Mara bi loolu moom am na ñàkkul 15000F yi jox keneen parce que dèjà am nga sa salaire ba xam yaa ngi fay ko sa salaire rajo. Mm-hmm. am nga sa yeneen business yoo xamante ne mu ngi lay jox xaalis te mm-hmm. dèjà sax am nga ay yeneen contrat yoo xamante ne yaa ngi signé actuellement nii. te tooy téye xaalis nekk ci. yaa ngi comprendre. yow actuellement dëkkatoo fi da nga digg naa yaa ngi fara xaw ma grand mbaa xaw ma petit mbaa ma tey sax am nga xaalis. maa ngi tënkee ci sama famille. <laughs> voilà yaa ngi tënkee sa famille. Ah, ah, yu mu fay mara bi wala luus <laughs> <laughs> dañuy waxtaan man ak moom. Mhm. xam nga ba événement bi ba mu yàqoo dama ko seetsi ma ne ko mhm. Hmm? événement bi day mujjul egg. waaw c'est-à-dire que pour man. Hmm? comme woo naa wax téléphone loolu. waay c'est-à-dire man li ma xam quoi. nit ki woo na la ne lii mujjul egg. pour man da ngay am compréhension. nii la waroon demee. mais yoon yi mu ci benn. dëgg la mais comme moom amul amul mentalité boobu noonu. Hmm. mu ngi ma doon topp pour ma fay ko. dëgg la léegi ma ne ko da nga may may fii ay fan yu néew. waaw maanaam comme dama nekk di lijjanti diggante gendarmerie. gendarmerie ak peut-être mënul xaar xaar bu yàgg. booba ana ñoom ana ñoom Kéba ak yi nga xam ne ñu ngi luus famille yi nga xam ne doomu aadama mënul occupé ñaar te luus mënul nekk fee li jënd matériel yi ñu euh, ne mara ma jël sama numéro ne du ko jël parce que man lépp déglu naa ko lépp seetaan naa ko tamit yaa ngi comprendre. mais mara bi li mu wax amul daf ma yow jël. waaw mu ne mosuma wootee jëluma mu ne luus su ma ko woowee du jël man dégg naa sax si biir wax ñu ne audio yi bokkul ñu ne audio bi lu euh, def ak est-ce que nekkul da ko fabriqué indil ñu ko. mais xam nga voix maraab yi. parce que man man man euh, am na benn membre PNJ boo xam ne war na ma bi ma louche bi ñuy louche indil. du audio maraab bi beneen nit la noonu euh, loolu intéressé la quoi. c'est-à-dire que ci du ci defoo quoi parce que ku déglu audio Mara bi mu njëkk a envoyé. bi mu njëkk a envoyé. bi ma toog toog ak moom di def di waxtaan ak moom. Mhm. mu waxaat boo ko dégloo di nga xam ne lii benn. parce que après sa sa deuxième moo fa demoon n'est-ce non sama DG Sadik da doon jokkoo ak moom si WhatsApp bi. doon jokkoo ak moom si WhatsApp bi waaw moom parce que dégg naa mu jégalu mu ne loolu ay kaddu kii la yaa ma gën a xam daal. affaire yoon kon dèjà man jàpp naa ne boo gisee waa PNG nangu ñoo teg euh, audio sa bi bi nga leen indil. Ah, si si kon comme li ma la wax nii léegi léegi. waaw ñoom ñoo toog parce que ñoom xam nañ dëgg bi quoi. waaw parce que ñoom dañ ne audio boobu dañ ko fabriqué. am na ñoom mais ñoom xam nañ dëgg bi. Ah, ñoom loolu la ñu wax. waaw parce que yow tamit euh, amoo xam naan xoolu yéene def doomu. c'est-à-dire pour wax la benn affaire am na am na seen benn membre. Mhm. mercredi bi ñu génn mhm. amoon na seen benn membre bu ñëw bu suma émission. dëgg suma rajo ñu waxtaan. waay il s'appelle Badou Pressé. kese moo si dox tànku jéego. Hmm. kon ba léegi yaa ak ñoom woo leen ba léegi non duñ déggante ñoom nangu ñu si def dara benn kii quoi duñ déggante kon parce que loolu lañ jàpp quoi parce que ñoom loolu lañu jàpp waaw seen mentalité moo toll foofu ah, mais est que tamit jartoon yow tamit ah, nga def le tout woo leen convoqué leen ngir waxtaan tamit entre yéen liggéey est ce que li ngeen def nii lii est ce que waru euh, du ëllëg du indi tamit problème si biir coobis bi. mais ba loolu amee man j'ai appelé puis puis woo naa ko trois fois. nangul jël. jëluma ma waat ko. Mhm. toog deux jours après waat ko téléphone. nangul jël muy sonné ma woo ji. après ci la ma ji nee puis dafa dem église. dëgg la ma expliqué ne ko léegi bon comme dafa amoon audace teg audio bi te amu ci ay preuve oui indi naa ko ay preuve yu ko leer. léegi moom na tegaat audio bi sinon man dinaa def sama sama sama sama wareef quoi. comprendre nga. Mhm. mais puis il m'avait proposé à ce que man ma dépassé wu ñëw Kennedy fekk leen. waaw léegi loolu nu mu war a mën a demee pour yow nga dem Kennedy foofu. waaw xam man man euh, le fait que ñu ne puis euh, ji ne ma man ma dépassé wu ñëw Kennedy. Mhm. man damay manqué mhm. que ñu bëggoon ma dépassé ñëw Kennedy. ba leen maaraab envoyé audio bi moom ba mu ko dégloo. parce que li gën a grave mooy. mara bi da ko envoyé audio bi moom mu jël audio bi tas ko. tas ko yi. waaw mu tas ko PNJ famille yëpp. ba pare soo ko mu envoyé audio bi man. su ko mu dégloo audio bi ay vingt heures. ma mhm. woo ko téléphone je l'ai appelé. ñu waxtaan plus de sept minutes ma expliqué fee bi yëpp ñu ne mu ne ma ok ñoo sa version laa bëggoon déglu. comme ñoom bu ñu bëggoon waxtaan duñ tas audio bi. ñu tas audio bi daf may woo téléphone ma ñëw ñu waxtaan parce que ay frère lañ quoi man ak ñoom.

waaw ñoom def nañ lu ñaaw seen xel moo tool foofu. mais nag man kenn mënul salir sama réputation. parce que dafa am lu mu liggéey ci banlieue bi yow. dëgg la parce que ñee louche mooy borom banlieue bi. loolu moom gars yi ñoo koy loolu am na moom. parce que banlieue bi moom yaay borom parce que tey fii. gars yi képp ñëw fii yaa koy xaalil hmm. may ko place mu toog. loolu moom am na. gars dañoo baax di wax may borom banlieue bi. non yaay borom su ma jógee banlieue day jug. la. waaw kon dèjà ga problème bi wane na ko parce que ba amee ba léegi banlieue bi ñooy jug ñu bëri dañ ko naqarlu neexu leen tamit parce que est ce que lii tamit du fay showbiz loolu neexul non man li mënul fay showbiz parce que boo xoolee milieu showbiz dëgg-dëgg mhm. à dafa am benn ci benn cercle bu mu nekk mhm. te cercle boobu noonu Rail bi FM la ñuy déglu Rail bi mhm. comme cest à nee naa la audio bi tey man su ma defaloon sorti kenn du ko xam kenn te le fait que ñuy jot audio bi dama ko xoolee loolu laa doon bañ. moo tax ma def sorti mais mënoon naa toog sama coin fay wax ji. fay wax ji dëgg la fay bi que ay DJ yaa ngi nañ nekk ci ah. ku mag la. ku mag la moo tax ma def sorti mais man ñoom mosuñu am lu mosuñu sekk lu ñaaw quoi. franchement nga jàpp ne ñoom euh, ñoom euh, ñoom fuñ ma de ma wax la benn affaire ah. hmm. la croix du Christ. man la. Hmm. du ma tas audio bi. oui te du ma ko envoyé Pi. dëgg la dama koy supprimer xam nga ma koy supprimer. parce que man ak Pi ji mosuñu dund lu ñaaw mosul ñaaw man ak ñoom. ah parce que doomu am tamit noonu lay ne. comprendre nga ma mosul ñaaw man ak ñoom. Pi est-ce yoo xam ne ak PNJ dañuy am problème. waaw bari na man man man sa man sa ñaata du tur ah. Ah. parce que DJ Jo ak PNJ dañoo amoon problème. dañoo amoon problème Taf Kambel PNJ dañoo amoon problème. Mhm. dèjà kon ñoom tout le temps ñoom ñu ngi am problème ak DJ yi man est ce que ñoom sikkuñu parce que ku ñëpp ngaa ñii day mel ni la hmm. parce que man dèjà man damay jàpp kon lii waru la mën a métti non c'est lii cest que teg bi la hmm. fait que ñu teg ko bett na ma bettu ma c'est-à-dire que li tax ma mooy ñoom lii seen jikko la ñoom lu leen métti dañuy jël man ko bon wa euh, ñoom c'est-à-dire que ñoom suñu amee lu leen métti ñëw en émission wax ko fa li tax li tax <laughs> léegi li tax li tax mu mu métti ma mooy le fait que ma jokkoo ak pii téléphone ba pare hmm. vingt heures ñu jokkoo ba pare pile de sept minutes mu ma ko jël ojo bi teg ko. ba ñuy ba ba ñuy jokkoo mu ma ne sa version laa bëggoon lu ñoo far.